il y a des hommes politiques qui depuis leur arrivée sur. Euh, am na ay euh, homme politique euh, depuis bu ñu ñëwee ci langue politique bi ñoom daal dañoo opté def maanaam di radicaliser wu bëgguñu waxtaan bëgguñu dialogue bëgguñu dara te ADN Sénégal mooy waxtaan dialogue ndaxte am nañ benn code boo xamante ne si code consensuel lañ ko amee te loolu li ñu ko amee mooy ci waxtaan kon daal waruñu maanaam di bàyyi li nga xamante ne moo di dialogue ba noppi di féliciter ki nga xamante ne moo di Khalifa Sall ñoom ñeneen ñi nga xamante ne bëgg nañ ñëw waxtaan ak ki nga xamante ne moo di président de la ne pour def li nga xamante ne moo di dialogue faut nga am courage il faut tamit nga am li nga xamante ne moom la ñu woowee dépassement comme que président de la république mooy maanaam tàllal na gars loxo kon daal jàpp naa ne ñi nga xamante ñoo di acteurs politiques yi ñoo si maanaam ñoo war a wuy si mais bu dee ragaluñu maanaam di amay xel ñaar ci waxtaan bi bu dee tamit am nañ courage pour ñëw ndaxte bu ñuy dialogue dañuy dialogue ci Sénégal du ñu wax leneen du doo xamante ne du jëmale réew mi kanam. on ne dialogue pas de